waaw salaamaaleykum mbokk yi fii ngeen di gis nag fii du Makka du Medina du Turquie du Sénégal du Maroc fii aéroport international bu JFK la International Airport of JFK terminal one ni ngeen gisee jullikaay bi fii nag noonu la amee ci terminal four incha uh, allah jullit yi ñu ngi def a good job here lu mel nii nag la soxla Sénégal soxla ko ci bépp dëkk jullit suñu demee ba fu mel ni Amérique di bàyyi xel fi jullit yi di jullee ci seen biir aéroport yi ah dëkk jullit yi ñoo ci war a raw nag alhamdulilah